tey ji li ñu jublu ci séminaire bi ñuy def nii mooy gën a ñaax jigéen ñi ñu dugg ci politique défendre seen seen position défendre également euh, les idées pour bokk ci jëm ci dogalukaay ci réew mi parce que quand jigéen bu ñu nekkee 52 pour cent population bi ndaw yi nekk presque 70 pour cent wala ñu ëpp ko ñooñu waruñu dogal dara te fekk fekkee wuñ ko waruñu doxal dara tam ci réew mi fekk ñoom fekke wuñ ko waxuñ ci seen kàddu defuñ ci seen jëf mais loolu pour nga def ko ci réew il faut nga def politique donc comme dañ ci war a dem te demee ci beneen ci beneen anam fekk du politique bi nga xam ne moom la ñu xam ba léegi en tout cas ci yenn aspect yi ñu dindi ko ci politique boobu ñuy def mooy du politique boo xam ne da topp si benn leader rek muy muy kii nga nga topp bu neew gos nga dem gauche bu ne droite nga dem droite non da ngay da ngay bokk ak moom di xalaatandoo ak moom di xàccandoo di dóorandoo di jëm si mbiru dëkk bi ak mbiru réew mi waaw ñoo ngi sant yàlla nag parce que jigéen ñi franchement biñ diggante 2014 ak léegi gis nañ progrès yu bëri dund nañ ci progrès yu bëri ba élection yi passé aussi am na luñ ci amuñu lépp niñ ko bëggee woon naam mais liñ ci am tamit xeebuñu ko donc dañu dañu comme niñ koy wax ci olof rek xëcc bu dogul dina dikk waaw donc loolu nañ koo jëfee ci ci ci ci yi parce que xam nga ci list électorale yi. moom motal nañ ko ba mu des benn exception boo xam ne aussi boobu tamit ci niveau supérieur politique la bokk boobu aussi ñu ngi koy ñu ngi ci ñaax parce que réew mi warul am exception benn warul am exception fenn wante ñu ngi koy dox léegi nag euh, exception kii irrégularité yu kii mooy ci formation bureau yi ak yooyu tëkkoog ci interprétation loi bi parce que am na ñoo xam ne ñoom dañu yaakaar ne que euh, interprétation parité bi mu ngi commencé ci premier adjoint bi di maire parce que nee nañ maire bi wala euh, président conseil départemental bi dañ ko élire au suffrage direct déedéet loi bi waxul loolu parce que 2014 problème bi posé woon cour suprême daal di rendre un arrêt te arrêt cour suprême loi la mu ne leen parité bi mu commencé ci premier bi ba ci ba ci dernier donc président bi ñu élire wala maire bi ñu élire au suffrage universel universel direct yëpp mooy numéro un liste bi donc numéro de bi jigéen la war a doon bu numéro un bi nekkee góor jigéen numéro deux bi góor la war a doon bu numéro un bi nekkee góor numéro deux bi deux la war a doon ñoom nag ñu bëgg ne ñi nekk numéro un bi du bokk ci ci parité bi ci à partir numéro deux loolu nag kooku la te Cour suprême atti woon na ko donc dañ ko war a respecté voilà. alors tey euh, li nga xam mooy élection bi est-ce que ci li waaw ñoo ngi koy yaakaar ñoo ngi koy yaakaar parce que quand même ñu ngi noté ay progrès depuis 2014 bi léegi ñu ngi am na am na ay jéego yu ñu ciy dox donc euh, ñu ngi yaakaar ne que élection yi di ñëw ci mois de juin dina am encore ay progrès yu gën a notoire parce que loolu lañuy ñu loolu la ñu yàgg moo ñu tax a yëngatu moo tax bi ñu jógee si municipalité dañu enchaîner sensibilisation ak formation bi di xalaat euh, élection législative yi di ñëw bu neex yàlla. seen xeex yàgg na euh, euh, li nga xam ko ci waaye jéego yi ñu ci xalaat comme ñun duñu duñu du société civile lañu jéego yi ñu xalaat mooy sensibiliser yeete waxtaan former. ak di di alerter tamit ñi nga xam ne ñooy kilifa ñoom ñooy jël dogal parce que ñun amuñu dogal mais mun nañu alerter dogalkat bi ne ko lii fi mu jëm du du respect loi bi wala nii la ñu yaakaar ne buñ ko see interprété nii ci lay loi bi di gën a amee effet euh, day gën a tegoo donc wax ak ak artu lañ ci mën artu pas artu mais alerter voilà loolu lañ ci mën te ñu ngi koy def te ñu ngi yaakaar tam ñun ñu déglu voilà. Depuis quelques années nous sommes un un, partenaire financier de de l'AGS. Et euh, euh, donc ça, euh, ça veut dire qu'on croit euh, très, euh, très fortement au but que la AGSA est, euh, qu'il, qu vraiment il mérite un support, un soutien pour ça. Et c'est dans, dans, ce sens que nous sommes là à côté de l'AGS on, on, aide avec le financement des projets comme, comme d'aujourd'hui. Et de temps en temps, on, on, ensemble, on organise aussi des événements pour, euh, sensibiliser les gens, mais aussi pour échanger, entre, nous, par exemple. de porter d'être l'AGS a une réputation ici au Sénégal. Ils sont une très forte force pour les femmes, avec les femmes très fortes euh, qui, sont, qui sont des pionnières. Et euh, donc je pense que euh, c'est clair que, que ça c'était no, notre choix parce qu'ils sont vraiment au, comment dire, au, au, au fond. Comment pour, mesurez euh, l'implication des femmes dans Pardon Comment mesurez-vous l'implication des femmes dans la politique oui, On voit les chiffres. Et c'est comme j'ai dit dans, dans, dans, mon discours, petit discours, chez nous c'est exactement la même chose. On n'est pas ici pour, euh, pour dire que chez nous ça, ça fait mieux. Donc euh, on, on, on, peut vous soutenir dans, dans, dans, ce sens, mais aussi chez nous, pour, comme je, je, viens de dire, chez nous, pour la première fois cette année, le nouveau euh, gouvernement, et, il y a une parité des ministres, femmes et hommes. Donc il y a encore une, un parcours euh, euh qui, qui, est loin, aussi dans la tête des gens. Ce n'est pas seulement quelque chose de culturel, mais c'est un peu la tradition que les hommes sont les les personnes qui, qui, qui, qui voilà, qui choisissent l'avenir. Mais nous, euh, maintenant, nous sommes au euh, 21e euh, siècle et on dit, OK, on, a, on, est pareil. On a les mêmes droits, on a les mêmes intelligences. Donc, euh, euh, il faut aussi que les femmes ont leur place dans, euh, dans, ce, dans la, la scénario politique.